soo demee ba sa rakk am jabar yow da ngay taxu dem samp fene ainsi de suite donc je pense que loolu su fekkee ne jóg pour liggéeyal làmb rek la warul nekk lu metti mais jóg pour contre nit ou bien euh, nit bi neexuma rek il faut ma def lii loolu mooy yàq mais su fekkee ne jóg pour liggéey làmb la je pense que xel yi yëpp dinañu dem ba tase mais loolu ñu ci gis nag dafa mel ni euh, maanaam confronté la moom lañ ci gën a ràññee de parce que diw du ma jiite nangam nangam dugg na fii maa ko gën a yàgg ci milieu bi yooyu daal la ñuy maye. loolu amul sens maa ko gën a yàgg ci milieu bi maa mel ni loolu amul sens yàlla ko mu wax ne mooy jiitu mooy jiitu et je pense que par exemple mun nga jiitu comme mun nga ñàkk jiitu te di def liggéey bu rafet fi nga nekk ci côté bu mu nekk. voilà yaakaar naa ni li ñu jogale woon ci waxtu wi mu ngi dem jeex euh, ci jotaay bi nga xam ne moom la ñuy seq tey. Euh, ci loolu tey laaj bi ñu lay laaj rek mooy bi ma la waxoon sànq mu jëm ci réew mi si nga bokk si laa bokk sama caméraman si la bokk keneen si la bokk te ku nekk am nga ci sa mot à dire. tey en tant que champion en tant que même porteur de voix laay wax boo waxee ñu déglu la nga nekk référence ci euh, milieu bi nga nekk même en dehors de la lutte euh, tey boo amoon tey benn message boo xamante ji da nga koy jox ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal plus particulièrement la jeunesse euh, ban message lay doon ak kilifa yi sax. comme ni ñu ko waxee rek comme opportunité nga am pour poser ma question bi ma la ci tuuti lu ma mun a wax. mooy Sénégal kenn du koy defaral ñoo koy defaral suñu bopp que ça soit leader politicien yi que ça soit ñu nekkul politicien yi dañu war a xool loo xam ne lii njëriñu askan la ñu seet naka lañ ko rafetalee ba ñu waxtaan ci ñëpp ànd ci xam ne kii su fi nekkee tey ëllëg moromam moo ñëw soo ci defee ci ñaw di nga ci des kon ñu rafetal ko ku munute doon ñu jàppale ko bu yàlla indi xiiwal ci dëkk bi def jàmm ci dëkk bi dëkk bi su amee jàmm ñu ñëpp am jàmm loolu rek laay ñaan réew mi xale yi nag wax naa la ko j'ai commencé à faire ça l'emploi de jeunes et consorts l'immigration lutte contre l'immigration clandestine donc ku nekk lu mu mun a def lu rafet ci réew mi rek war loo xaar président de la république war loo xaar le ministre da war a def su la fekkee see nga xam ne fekk si la su la fekkee sol nga xam ne sa devoir ngay def et c'est ça que je dis l'autre jour mu waxtaan ak le maire de Parcelles Assainies kontaan ci liggéey bu mu liggéey Parcelles Assainies mu ànd ak moom liggéey ma ne ko jeunesse bi yaa fi nekk ci jeunesse bi jeunesse bi mënul jot le président de la république donc suñu ñëwee di wax ak yow nga déglu leen je pense que liggéey bi nga def simeeku di ànd ak ñoom di nettoyer marché yi di def la loolu rafet la donc maa ngi ci félicité ñun ñëpp dañu ci ànd waaw. est-ce que un mën nañ xaar Manga tàll loxoom ni damay jël commune parcelle. non commune parcelle xalaatuma ko. xalaatuma ko commune Joal Fadiouth. xalaatuma ko parce que ne bokkul ci suma ambition yi waaw. de toute façon aussi su ambition yi am na kilifa yoo xam ne suñ ma solicité pour jàppale leen waxtaan ak ñoom dinaa leen wax lu ma mun ak lu ma munul te fu muy ma soxla ma jàppale leen dinaa ko def. la preuve étant donné comme ma ASC unité parcelle bi ma nekk dañ ma sollicité woon ma bañoon mais ay kilifa jóg ñaan ma bi ma jël équipe bi ma jële équipe bi aussi yàlla defal ma ndam ma jël coupe bi te mosuñu am coupe ci élég euh, ci beneen at bi ma ne comme Kano la nañu jox keneen ma bàyyi ils ont refusé jëlaat beneen président pour jëlaat beneen président ñu ban a participer ren encore ñu ñëwaat avec une forte délégation ay bàjjenu góor le délégué de quartier Birane Litou et consort ñoo pour ñu waxtaan bi ñëw pour ñu waxtaan aussi on a trouvé un terrain d'entente ma ànd ak si ak moom ci luñ ma ñaan yàlla defal ñu aussi ndam ndam ba ñu jëlaat coupe bi donc année prochaine mën nañu seet keneen ñu jàppale ko aussi. yow da nga leen jig da nga leen jig macha allah. waaw dama leen jig mais am na ñeneen ñu nekk ci quartier bi ñu leen mën a jig. et am na des hommes de bonne volonté yoo xam ne moo nekkoon pour ma réussir jëkku bi. Euh, des fois dañu bañ ñu tuddee seen tur mais ñoo jàpp bi yàlla defal ñu sutura boobu donc euh, suma rak suma doom suma jarbaat Papis Wagué maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax parce que ba ñu egsi ba jël coupe moom ci la bokk waaw. ci loolu. d'autres gens euh, ci loolu xam nga ku wax maanaam milieu lutte sa xel dina dem ci jeune. ñu nga xam dañuy entraîner am doole yëkkati baar xam nga mel nu leen neex macha allah comme ni nga ko waxee sànq euh, te en général agression bari na ci dëkk bi te lu ci bari bu amee dañ koy ñoom la ñuy si bari dañ leen koy jéem a jiñ yenn saa yi tey boo amoon message boo xamante ni ji loolu la ñuy euh, collecturer li xam ne mooy entretien bi message boo xamante ji da nga koy jox surtout yow ñi nga xam ni ñoo nekk si école de lutte nekk ay jeunes di préparer seen carrière wala bëgg euh, làmb par amour. te ñu ngi entraîné peut-être ñu si bari ne da nga leen gis ci plage yi ñu ngi entraîné mais amuñu xëy amuñu kii te bu ñu amul xëy mën nañ def leneen te agression baa ngi ci dëkk bi euh, insécurité bi kenn waxatu ko tey boo amoon message boo